sant waa association fu ñu leen leen soññee wala ba leen leen soññi sax ñu jóg taxaw ñu jël engagement yi ba léegi lépp luñ ne acc leen ñu ciy jógee rek ñun ak ñoom ñu ñaanal leen yàlla ay ndaw lañ aussi liggéey seen alal yàlla dimbale man yàlla dimbale leen dañ mën ko def ci diine kon orientation boobu doon doon wax dëgg yàlla macha allah bëgg nañ dimba si ñoom nga leen bu baax a baax seen commerce yàlla barkeel lépp lu ñu jaay mu jar yàlla def leen mag def leen mag diina ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee ñu jox sëriñ bi rek su ko defee ñu jox sëriñ bi mu jotal yóbbante bi bi nga xam ne moom la ko moom Malick jox suñu sëriñ incha allah ñun ñëpp ñu bokk tataan su ko defee comme li Sidi wax ñi sant Fafa ak ñi sant Mbour ñu dalal seen xel xam ne lépp mu ngi fi bu ñu paree suñu président Abdourahmane nee na ñu koy sant bu baax nee na la nee na du on na ñu wuur nee na lépp lu lay ànd ko defal nee na li mu mënee muñ nee na na ko yàlla mën na yoon ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñun nuyu leen siyaar leen ndokkeel leen ci gudd yu tedd yi ñu nekk lépp guddi suñu njëriñ ngir bokk Cheikh Sidi Hadji ñu baaxee ñu bokk ci ñiy màggal Seydina Muhammad ci ay guddi juddoo ñu ñëw fii ci centenaire jël nuyoo bu tedd teg ko ci loxo Abdourahmane Ndiaye mi moo jiite mbooloo mi ci turu Cheikh Seydi Hadji Malick Sy Mouhamadou Mansour ba ngeen ñëwee ca moom waxtaan ak moom laaj ko digal mu jox leen digal cent pour cent ngeen sàkku ci moom teewaayam ngeen sàkku ci moom teewaayam mu ne teg ba yàgg mu ne waaw dégg naa waaye ki mu wax moom waaw ndax bëgguma wax waaw waaw sama waaw des loolu ngeen fa jëlee keroog bii mu ne ma woo Abdourahman ne ko la ma leen waxoon mbaa fàttewuñ ko ma xëy woo Abdourahman waxtaan ceeg moom mu ne ma fàttewuñ ko ma ne ko kon loolu moo waxoon leen nag mel na ne am na lu ciy xëy ngant nag du ñàkk ci nit. amoon nañ ak yéene ndax njaboot gii seen lépp moom lañ ko jox muy seen bunt ci kër si daal di mari waaye nit ku nag foo nekkul am nga ku la mën a wuutu mu jël rakkam bii sëñ Abdou Aziz Si Moulay ne ko àndal ak Mansour Cheikh ngeen fekki président coordination bu Dakar Alhaji Moussa Guèye nii tabaarakallahu ngeen teewal ma ci guddi ndax nii la ko defee woon 2019 ak yéen di am ci diggante bi am ci ngeen ren ngeen di laaj ko lañ ñëw ba Thiam laaj ca laajaat ndigal ñu joxaat leen ndigal ngeen defaat ko yan yàlla barkeel di nuyu ñu fi teew ñëpp di nag sant bu baax Manirou Gaye ci waxtaan wu neex ñu fi def ci alquran ak ci mbindum mag mi lépp jëm ci yonent bi sallallahu alayhi muy suñu sens di nuyu sëriñ Sidi Ahmed Mbaye tabaarakallah ak mboolem ñu ko seetal di nuyu njaboot gi ñu fi fekk ñëpp kon sëñ Moulay Abdoul Aziz la baax ñii la sar mag sa sëriñ yebal ay borom yi pas-pas lañ keroog daaw jéeg bi ñëwee fii daf leen ne c'est la première fois ma am daayira ñëwal ko ci biir Dakar dox yéen la njëkk a ñëwal ci bi am na njaboot nag Dakar waaye Fane yéen diggante Kër Massar Pikine Guédiawaye jàpp yëmbal ak yooyu waaye fii moom yéene ko fi njëkk indi loola nag muy kóllëre koo xam ne gii yéen a ngi koy doxal boobu ba léegi sans changé Abdourahmane ñëpp a koy sant ci taxawaayam ndax jiite na mbooloo mi waaye déglu na mbooloo mi lu am solo jiite mbooloo déglu leen seen xalaat nga di ci dox day tax ña nga àndal déggoo yow te mbooloo mu déggoo luñ jëm man yal na yàlla dimbali leen kon Mawlaaya sa ko kàddu kilifa gi yaa ko yore ndax yow la yónni fii ci njabootam jërë ngeen jëf bisimilah. asalaamaaleykum comme ni ko xaaj mu niir ñu waxee léegi rek ñu taataan yiw bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu fa tabarakallahu ñoo ngi indi kàddu nuyu ak ziyaar ziyaara bu bàyyi ci sunu sëriñ sunu mag sëriñ man Malick Sy mu yebal ñu ñu ànd ak suñu ay magu daara sëriñ Mansour Diouf imam sëriñ Cheikh Mette Diane Dramé imam ñu ñëw fekk si itam waa Tiwaawan ndax ku xool jëmm yi fi teew xam ni fa tabaarakallaahu waa Tiwaawan rekk fi nekk ñoo ngi leen di indi nuyoo sëriñ Mame Malick Sy Abdourahmane sëriñ Mame Malick mi ngi lay nuyu mi ngi lay ziyaara wax ñu ay kàddu pour ñu jottali mbooloo mi yëpp ci sa kanam euh, euh, balaa loolu ñu nuyu bu baax imaam moomu koñ bi fa tabaarakallaahu di ko jox wàccuwaay ak kilifa yi fi nekk yëpp di beral nuyoo bu baax euh, suñu soppe suñu xarit suñu doomu ndey sëriñ Sidi Ahmed ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay yow ak ñi ngi ko seqal ñëpp fa tabaarakallaahu sëriñ Habib jërëjëf xaaj macha allah. ah dégg nañu lool waaw ah, maa soaba ah, di nuyu itam bu baax suñu soxna yu tedd yii toog yàgg lool toogaay bi yàgg lool waaye kenn xàdduwul ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci turu sëriñ Maam Malick si ci turu xalifa sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour di nuyu suñu mbokk daara di suñu rakk di suñu lépp lépp xaaj Malick Diol fa tabaarakallaahu ngi ne nekk ca mataaxin yi eh, ñi ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu bu baax nag itam di ziyaara njabootu sëriñ Mame Malick ñi fi nekk yëpp ñi nekk fii ci biir Dakar ak ñi nekk baal ya tamit gis nañ fii ñu njabootu sëriñ Mame yoo xam ni eh, seen pas-pas bu dëggu ci sëriñ Mame Malick Sy seen engagement bu dëggu ci sëriñ Mame Malick kenn mënu ko na muy alxaaji Moussa Gueye bi ma gis nii fa tabaarakallaahu di borom pas-pas dëgg nekkal ko Kër Massar ak li ko war di nuyu itam soxna Kine di présidente fondation taxawu sëñ Mame Malick mi ngi nii toog fa tabaarakallaahu ak ñi mu àndal ñëpp jërëjëfati euh, euh, bu ñu nuyoo ñooñu euh, ñu tafal fi rek nuyu ñëpp xaj mu niir jërëjëfati ñi ngi lay jox sa wàccuwaay di dégg lool euh, fii ci bërëb bii bu dee kàddu gu war a tooyal xol wala bu nar roox wax nga nga fa ne bu dee kàddu war a mën a déglu pour jikkoom yokku ci fa tabaarakallaahu wax nga bu fi sëriñ Mame Malick si nekkoon itam sa kàddu yi da koy deyloo samp euh, euh, doomu soxna nga jàng nga ba nga waree jàng fa tabaarakallaahu mag ñi wóolu nañ la wax loolu kon jërëjëf xaj Munir sëriñ Lamine Gaye sa doom yaakaar naa sa doom la waaw Lamine Gaye sa doom ñoo bokkoon nekk Égypte bokkoon benn néeg ay at yu bari lool ñoo bokkoon benn néeg ay at yu bari lool fa tabaarakallaahu di doomu xaj Moustapha Gaye jërëjëfati euh, euh, sëriñ Maam Malick nekk ni ñu moom ku ko xam-xam ni ci ndigal la tënku ndigal li mu tënku nag mooy kàddu xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mouhamadoul Mansour sëriñ Babacar Sy Mouhamadoul Mansour xaj siid temu ren bi jugeewul ci benn làmmiñ jugeewul ci benn gémmiñ ci gémmiñam bi jugee ci xalaatam li tax tax mu def def mooy gis na ni jamono ñëw na euh, ndaw ñi am nañu repère waaye xoolatul seen ay repère sëriñ Babacar Si Mahamadul Mansour daat ni na waajur yi na imaam yi na kilifa yi na njiit yi delluwaat ci biir ñu ne kan waxtaan ak njaboot jataay yi internet ne ak lépp lu aju ci téléphone nga xam ni daan defar waaye léegi dafay dafay yàq fa li fi nekk ci wax ju ñaaw wax wax bon bon euh, euh, rey nit dund te lépp nekk njàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ci tënku raw xalifa bi daal ñun ñëpp nañu ànd tënku ci te mu ren bi te mooy na jullit yi di waxante lu rafet na nit ñi manière générale di waxante lu rafet muy murid bi muy tiijaan bi muy xaadir bi muy sax chrétien ñun ñëpp nañuy ànd di waxante lu rafet bu ñu ko defee lu ñu ñaan yàlla yàlla may ñu xalifa bi kàddu googu la joxe muy wakkoolu li naasi husna euh, euh, kàddu xalifa boobu nag nga xam ni mooy temu ren moom la sëriñ maam Malick wax ni bu ñu yéegee nañ ci jàllale ak tuut même bu dee ab indi sëriñ maam Malick nag pour nga wuutu ko ci bërëb fii bi dafa jafe-jafe ndax xam-xamam ak jikkoom macha allah xam-xam téere rek nit raw bu si yokkee jikkoom day daal di amee ñaari jikkoy sallallahu alayhi wa yi nekkoon mission muy jàngale ak yar innama bu'istu mu'alliman innama bu'istu li utammima ñaari métier yëpp moo nekkoon métier sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ Maam Malick Sy loolu la kenn mënu ko ci ku mel nii nag yebal ku mel nii faw mu am faay euh, euh, sëriñ Abdourahman sëriñ Maam Malick nee na nañu dellu wax ndaw ñi Dakar ak li ko wër nañuy gën a yee ndaw ñi sallallahu alayhi wa nañu bàyyi xel bi ni ko xaj Amir waxee léegi muhammad muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xoolee xaraf yi si xabib muhammad boo xoolee xaraf yi ñaata xaraf la ñeenti xaraf ñaata xaraf moo si xaraf nuuraani yi ñax ñax mooy ñett yu njëkk yi moom lañu ñu tuddee alxuruf an nuraani benn bi mujj bi bokkul ci xuruf nuraani li tax tax ñun ñëpp ñu war a ànd ñun ñëpp ñu war a ànd jubluwaat sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, maam borom Tuubaa dafa am benn bayt bi mu waxoon bu am solo bu ma neex lool mu ni raamal wara nay la wal fadlu kay bàyyi mu saako benn bés mu firee ko wax bu am solo mu firee ko firim bu am solo mu ne gis nañu nit ñi njiit ñi ñëpp ñu ngi dëgmal daw wuti ngëneel ci ay sëriñ ci ay nit yu ordinaire ci ay wali ci ay ci ay ci ay nee moom bàyyi bu saako maam borom Tuubaa daat ni eey yéen daw di wuti ngëneel kaay leen fa ngeen jublu foofu ñëpp ñu dë euh, wëlbatiku ne ko fan la mu ne ko wal fardule ànda fa ngeen jublu du foofu ngëneel dëgg mi ngi ci sallallahu alayhi wa sallam maam Cheikh Seydi Hadji Malick nag réussir lool li tax maa ngi koy waxtaanee léegi ak benn mbokk bu nekk Arabie Saoudite ca Makkatal Mukarram ren ren bi ñu dooree bunt bi ba tey ñu ngi buddu màkk sénégalais yi nekk yëpp may nañ leen permission ña ngay budd nu mu leen neexee ca màkkatal mu kanam 1902 bi seen xaji Malick di di gàmm ñoom Arabie Saoudite ñoo njëkk a bind ni bidaa waaye tey tey ñëpp nangu nañ waxuma nangu waaye wàlli yaani sax si xalaatu jàmm li olof di wax ne ku dul njëkkee ku dul topp noo da njëkkee maam Cheikh Sidil Hadji Malick bi mu jëlee burdu ku waxoon ne dina dem ba bis waa Makkatal Mukarram jël burdu di ko burdu tey ña nga di feetee sallallahu alayhi bi su juddoo moo tax ñoom seen bopp ñoo ko daan wax bidaa la tey ñoo wax ne al ihtifaalu bil mawlidi nabi nabawi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxtaaju ila xadiisin saxiixin bal yaxtaaju ila qalbin saxiixin waaw ñoom ñoo ni woon màggal juddu sallallahu alayhi wa sallam bidaa la baaxul ku ko def yaa ngi def sirk boo dee yàlla ala ala duma la tey ñoom ñoo tourné dindi wax ni màggal juddu sallallahu alayhi wa sallam aajowowul xadis bu wér li mu aajowoo mooy xol bu wér bu ñu maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu mayee occasion bu bii feeñal sallallahu alayhi wa sallam xañ ñu boppam war nañoo xam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy kan kan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaj na nii wax na ko léegi muhammad li tax yàlla ñëw ne ko sayyidina muhammad yow yaay sama yërmande yow yaay sama jëmmi yërmande boroom xam-xam yi ànd nañ ni wa rahmati kulla shay'in fa sa aktubaha lilladina yettaqun rahmat yi googu nee na ñëpp mooy sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam bu nekkee jëmmi yërmande yàlla yàlla ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay sukkandiku pour mën a tëbb nit ki leer pour man ko dugal aljana man ko may teraanga àdduna teraanga àllaaxira moo tax maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy bu ndaw rek bu ma lay wax ci diggante xaraf nuuraani ak xaraf ngulmaan yi boo gisee alquranul karim maanaam baatul alquranul karim xaraf yi ci nekk leetar yi ci nekk alquranul karim leetar yi fa nekk yëpp ay ay ruuf nuuraan ya alquranul karim baat yooyu li wax leetar yi fa nekk yëpp ay xuruuf nuuraan ya ñi jàng asraar moo ko ñoom Serigne Cheikh Mati Yane lii jàng asraar xam nañu loolu mooy alquran bu nekkee xaraf nuraani sallallahu alayhi wa sallam turam nekk xuruf nuraani am benn bu si jar mooy wane ni sallallahu alayhi wa sallam la maam Cheikh Sidi Hadji Malick waxoon ni jëm ni yërmaane sallallahu alayhi wa sallam commencé wul ci ku baax wala ci ku topp yàlla fan la commencé min faajiri ci ki bon ba ñëpp ni kii dafa bon kooku la sallallahu alayhi wa sallam di ñëw jox ko tànk ni ko kaay min fajirin wa rahmatullahi kullal qad watia min fajirin wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasiat min fajirin wa muti عن زائد ما قد وسيع وجنا من فجر xaaji Seydi jërëjëf ah yow moom baax nga lool kii ku xaw a waaw am naa njaay ni ñoo fi nekk suñu ma wax xiif wala mar boo waxee ba xaw a mar rek nga daal di waaw fa tabaarakallaahu jërëjëf maam Cheikh Seydi Hadji Malick nee nañu sang bi sallallahu alayhi wa sallam yërmandeem ñun ñëpp eh, eh, ëmb nañu ci benn ipaaba maanaam ci benn kuréel euh, euh, waaye nag sallallahu alayhi wa sallam li muy nekk nekk jëmmi yërmande li muy nekk moom sallallahu alayhi wa euh, noonu la waxee ni ana alqaasim am na ñoo xam ni sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñëpp comme ni ko xaaj ma di tujjee léegi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi fi bi muy waxtaan mi ngi jox ba xaalu naan hada rasulullah dëgg la sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci bëri ëllëg moom mooy nettali suñu borom subhanahu wa taala lii nga xam ne nii moo fi xew ndax moom mooy shahid shahid bi ñu ko waxee mooy ki nga xam ne nii mooy teema ku teewul nooy nettale déedéet fa tabaarakallaahu ñun ñëpp ñoo ngi ci biir rahmatullah ndax yërmaane suñu borom daf ko jël jox ko bi daal di koy woo ba mu ñëw mu ne ko kenn moomu ko budul say say say xeet sa umma kon ñun. amuñu droit amuñu benn euh, euh, yitte bu war a nekk suñu yitte lu dul waxante lu rafet soppante te yàlla tax bëggante te yàlla tax alquran nettali na ko ay yoon ay aaya yu bari xalifa bi nag jël ci benn aaya ni nañu ko bàyyi xel mooy la ngal la bu kenn jëwati sa morom bu kenn waxati sa morom lu bon bu kenn jublu ci biir réseaux sociaux yi di wax wax ci nit lu ñaaw Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum nee na balaa kenn na wax ni reyuma nit nit ëllëg yow ma ndax rey nit nekkul ni danga nga koo jam wala da nga koo euh, euh, euh, dóor yàq mu dee déedéet maanaam bokk na ci rey nit nga wax ko wax ju ñaaw ba ñëpp yëg ko xoolee te li nga koy wax même bu nekkee même bu nekkee yàlla jëppi na la jëppi goo xam ne ni lépp lu am nee na la jëppil ma waaj kon kon ñun ñëpp ñëpp dañoo war a ànd joxante loxo xol ci ndigalu xalifa di sëriñ Babacar Mahamadou Mansour dégg nga benn bis li ñu nettali ba xaal dikkal ko ba muy jooy ci alam bi mu toll nga xam ni kii la sama turóno mam ak dabaax doon faral di wax nañu tàppe xol yi foofu la toll nañu tàppe xol yi sëriñ Maam Malick nag nee nañu xewwi tàqalikoo xewal booloo nañu xewwi mbon xewal mbaax ñun ñëpp kenn ku si nekk xam nga ni am na koo xam ni mën naa am jàppal nga ko lu ñaaw moo xam ci wax la wala ci jëf ngar la waaye bu ñu fi jugee na kenn ku si nekk si ñun dugaat bopp ñu na kan baaluwaat ak ñenn ñi nga xam ne nii xaw nañoo am ak ñoom réer ndax bu loolu amul mooy waral lu ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala guddi ba fajar yàlla du ko nangu bu juboo amee bëggante am soppante am balaa ñu wax ko allahuma yàlla ni la saltoo laajal ma jox waaye fi bëggante amul soppante amul boo ñaanee tuba ba guddi wala guddi ba fajar yàlla du la du la kon kon nit ki bu dëkkee di ñaan te li ñaan jusi dara na ruqaat na dugaat ci ruq mën a kan xalifa ba nag nee na ñun ñëpp nañuy dëkk di waxante rafet di ko jëflante bu ñu ko defee yàlla du ñu jël ñun ñun du ñu jëppante suñu biir ah, ah. fa tabaarakallaahu mbokk yi kon ah, lii rek moo nekkoon kàddu yi Abdourahmane li ñuy taataan ci leer ak ci mbaax ak yiw ak jikko taataan nañ ko ba pare ah, te arab yi ñoo lépp nii wax wax bu yàggee rek tàyyelloo kii dégg bu gàttee te am njariñ nag sawarloo lool kii kii déglu fa tabaarakallaahu kon ñoo ngi jégalu ñëpp di baalu xaq ñëpp di baal ñëpp xaq ci turu Serigne Mame Malick lañ doon eh, tënkee kàddu yi rek ah mu boole ñu ak suñu magu daara Serigne Cheikh ak Serigne Mansour ñu ñëw rek jottali kàddu yi feeñal ngantam moom moo waroon a ñëw fii ànd ko ak yéen waaye Baye bu Sakho day faral di wax ne ko am kilifa ku mën ci lum la wax du dëgg waxee wala waaw. nee na ku am kilifa ku mënti doon tama mooy dafa am kilifa ñu ne ko lu tax mu ne mën na laa wax ni la bis sàngam dinaa ñëw sa kër bis sàngam jot kilifaam woo ko yebal ko ci bërëb su boobaa lam waxoon fan la sëriñ Maam Malick nag sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si kilifaam la ay magam yëpp ay kilifaam lañ te ñëpp la jox cër ku ko fi woo mu wuy si la si moo tax kon lii jot te ñëwul moo ngi jéggalu ñëpp di baalu xaq ñëpp di baal ñëpp xaq mënuñu rek nañ ngeen nañ ñëw teewal ko fi waaye eggali yéene rek waaye mën ko wuutu ci bërëb wax dëgg yàlla eggali rek yéene la ñuy def kon mbokk yi ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf tàllal leen loxo yi yàlla na ko yàlla indi ak jàmm fu waay jóge jëm ca yàlla yàlla sàmm ba nga egg ak yàlla bu ci kenn am benn ndog ci yoon bi dem ak dikk ñu waay nag defaru ba jekk fi ñu demoon ci Malika Babacar wax na lu am solo taalibe Cheikh bi demee teewal na waaj lii baale sijaada lii baale kurus lii baale maanaam wasif lii baale yére yu rafet bu dee bu góor wottul ba jekk dindi sa karaw yëpp soo sa mbaxana soo sa yére bu rafet kenn ku ne fa nga dal fexeel bu jox waxtu jotee na fa am ku noddu ngeen joxe waxtu waxtu su ngeen julee takkusaan def leen seen seen seen seen seen weer su ngeen julee timis def seen watifa bu ngeen julee fajar def seen watifa ajjuma mooy bisu noppalu ñu bari dara fi def teewaat fu waaye nekk dal ndax xorum nga ñëpp waaye kenn ku ne fu nga dal teewoon la si xaj moo ne woon teewoon gii ku yàlla nam na fa sa aajo doo fi ñëw waxul doon fa mu dëkkee waaye boo ne yurub teewoon rek yaa ngi jub teewoon kon waaye dal nag dem lekk ba suuf woo julli woo wirde woo wasiba woo jàng wax Seydou Mar wootewu loolu Maodo dafa woote pour ñu defaru mu defar suñu xol delloo ñu ci yàlla ñu xam ko yonent bi jaamu yàlla jàng alxuraan bu si ko wér dë jili ak si juróom maa yiw im daal ñoo ko ñëpp bàyyi xel na yàlla yéen ci mu nekk suñu ju gàmm xalifa bi nag yéen ko yàlla may ko fan bu gudd ànd wér ba naal bi mu ay la ko jàmm bisimilah fan leen la koy sëriñ ñaan allahumma amin nee nañu daa ngi ñaan maam Cheikh Hadj Malick yi te mooy fatiha salaatul fatiha ayatul kursi qul wallahu ahad falaqi naasi salaatul fatihi daf ko hadiyi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci yàlla suñu yéene dund yëpp والتوفيق والإعادة بما أمرت بالأمانة لكي نؤدي به الحقوق حيث عن الحق يا ربنا أجبنا بجاه ذلك العظيم عيننا عين وصراط المستقيم لطيف يا محصي ختم الغرض لنا كذب المراد حيث عن السر يا ربنا بذكر الحكيم نعوذ من عدل ونعوذ من شرور القرآن يا رب نجنا من الأهل والموت والمرض في الأسرار في الدم والبلاد والبحار سفينة عن أو سيارة دراجة كان أو الطيارة وميت في سوء يوم وكل شيء وكسر العمر الى ان اجرى من كل ما يجري ربنا امين من مرض القلب من اعجب الفاتحه امين وفارج وكلمه العين والسلم والحسن من كل ما يجب قتل عدو اعظم من كل ما يجب قتل عدو اعظم من كل ما يجب قتل عدو اعظم بسم الله صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق وخاتم الناس وخاتم الناس امين ان الله وملائكته يصلون على النبي امين